wane nit yalla moy ki neex yàlla rek mu tan ko def ko ci bopam lu mu def bu baax ko. est-ce que ko ku yàlla xëy rek tegu ko ni toppewu ko dara. wa mom la ne xam nga loolu nak ciobare yalla la ciobare yalla du lu ñuy japp lu ñu xam la mbaa ñu ko. deug la. Mhm. yo nak maa ngi leen bokkale ci xam gi ko xam yow ta gëm ko yow. Mhm. kon tay duñu tuddu sa sañte ni du ngeen ko gis du ngeen ko tudd ndax dama nekk ci yoon mhm. waaye xam nga matal kóllëre mhm. dafa bokk ci ahlu wirasatu muhammadiya li ngeen di hmm waaw góor gi dafa waxoon mu ne mhm. lal hayati Rabbu amni wa amani mu ne man lu suma dund bi yàgg-yàgg mm-hmm. ku xam kóllëre te mën koo sàmm lay doon dañu kóllëre wantoon trois heures mu jot ma jàpp mënuma feeñ waaye danaa mën a wax waaye mm-hmm. ah, bu fekkoon comme sa uniforme bi nga sol nii xëy rek taxaw nii moom lay def konoon danaa ko def gisoo ni nga noppaloo yow da ngay jug rek bëtti dugg toog te yow grâce la te li ci garaaw mooy kenn du xam lan laa lan laa def ci suuf du am importance ba pare nante maa nga ko wóor na ko sol ba pare def nante ma taf ko ci kaw bilaay ndax sol nga kawaas tubé bu gàtt nga sol bu gudd wala da nga ko bàyyi noonu librement mu doon joueur libre xaw ma kenn xamu ci dara bilaay da nga noppalu kon léegi kon comprendre nga tey sama système ah ñàkk a yor sax système la. ndóol ndóol la. ndóol de boo ndóolee da ngay yaru teey ba pare lu ñuy wax nga ne subhanallah alhamdulilah astaghfirullah ñàkk waaye am na yàlla. boo boo yoree nag. boo yoree moom boo reewee ñu ne ak am bo woyé nit xaji guddi ñu né akam it guddi lay xëy la woo di la ko nga yéxa dem ci xew mu né akam ité ñak jotta tax mu ñëw way warut fi wona ñëw. <laughs> dëgg la de. Mm-hmm. Mm-hmm. astafurlah. <laughs> waa sëñ bi. balaa ñuy balaa ñuy yegg ci dëgg dëgg tey li ma bëgg ñu laal mooy lan moo Sénégal. ñu mm-hmm. baaxoo ci ñi ma ko sañ wax. bu ñu tuddee sëriñ si ñu laal seen xol yi mais mën nañoo tudd arxuraan wala ñu tudd ko mel ni yonent bi te bal du tàkk coow du jub luy waral loolu. waaw. dégg-dégg bi léegi la gën a leer wala bu njëkk. waaw ah, bu bi bii leer na mais day capté yenn bruit yi ci ci ci ci côté yi. boo takkaatee boo takkaatee kii bi moo dàq. nee na polong li ko waral mooy. Hmm. dañoo xamut yàlla xamuñ alquran xamuñ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nit lu mu xamut mënu koo jaral dara. waaye ñun sëriñ nit mooy toog xamal ñu maamam. Hmm. bëggloo ñu maamam. xamal sëriñ bëggloo ñu sëriñ waaye yow hmm. nit koo xam ne lam xam te bëgg ko den ca wax lu ko naqari du mer hmm. moo tax ñuy mer di wala loo xamut bëggoo ko ñuy wax ca lu la naqari dina la tardé du la tardé du la naqari dañoo xamul yàlla rek xamuñ yonent bi xamuñ alquran waaye suñ maam mi moom xam nañ leen ak suñ tariqa yi ak suñ niti diine yi moom xam nañ ne moom xam gi ñu leen xam nag moo tax ñu valoriser leen bëgg leen fonk leen fonkaange googu nag moo tax ku leen laal ñu xaru hmm. lu rek la c'est pas méchant du lu métti daal xam ñàkk xam képp la waaw waaye du dara de ñàkk xam képp képp képp la hmm. mhm. lu rek entre alxuraan ak li mag ñi bind bàyyi suñu mag ñi ñi nga xam ne ñoo yor suñu tarixa xëy ci réew ma est-ce que loolu tey war naa mën a jur doon débat bu fekkente ne dañ ne alxuraan kese moom mooy maanaam mooy dëgg mooy alxuraan mooy lu kenn dul sikki sàkka du kenn dul weddi du amul cest diir amul dara est war nañ koo tëkkaleeg li nga xam ne nii mag ñi ñoo ko bind même bu fekkente ni yàllaa Por tanto, lazima na mag ñi ak Alxuraan comparaison boobu boo fa dëggee rek dëgg fee waaye fekk mag ñi liñ bind a ngi Alxuraan toog rek loolu fenn la ci neen dëgg mënu fa am baamtuwaatal li nga wax ndax da doon daw de réseau bi bon na fii mu ngi

waaw da ngawang wax nga ne. yaa ngi may dégg bu baax. Dabos e eh, Dabos namm deh, la de ci loo nekka Dabos man ngay offan. Mhm. dama wax mané da nga wax nga ne. man dama nekk ci yoon soo ma wonut ne yaa ngi may dégg du ma mun a continuer. lay dégg bu baax instant bi waaw. yaa ngi may dégg bu baax. tontu laajte bi. Mhm. damay defaraat question bi defar gi ma koy defar mooy tontu laajte bi. Mhm. mooy ne mag ñi liñ bind ak alxuraan loolu warta nekk. su nekkee rek ci neen leen nekk te neen dëgg mënu faa juddoo. mag ñi du lu ñu war a jàngale ndax jàng ko amul njëriñ jàngale ko amul njëriñ loolu den fay yegg dund ko ma répété wax mu gën a leer mag ñi seen yenn bind yi du lu ñu war a jàng du lu ñu war a jàngale den cay toll dund ko suñ ko jàngee musiba am na suñ ko jàngale musiba am na waaye jullit bu nekk war na la nga jàng alquran ba mën ko firilu alquran bam leer nga jàng hadis ba mën ko ñu firil la hadis bam Buboba leer bu boobaa lamp dina nekk sa kanam bu leer bu jub boo xam ne benn car gi mu ngi ci yàlla benn car gi mu ngi ci yow waaye su boobaa di nga boo demee fekk mag ñi di nga am balance mu mun kat oh. kan. réseau baa ah ok dama amone app way tej ma telephone bi. di nga mën xam mag ñi li ñu bind lan la li tax ñu bind ko lan la lan leen ci jublu. waaye su fekkee ne yow da nga nekk xale nga toll ci jàng ak jàngale ñu weesu alquranul karim jàngaluñ la ko weesu xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàngaluñ la ko téere mag muñ la duggal dañ lay yokk réer ak ngëlmande waaye duñ la xamal dëgg-dëgg lan mooy siraatal mustaqim hmm. ndax mag ñi waxuñ xam-xam bu bari de mbëggeel bari leen doon wax xam-xam ak mbëggeel du benn tawhid ak fiq du benn mag ñi ñoom denaan ñëw jaar ci alquran jaar ci hadis jëfee lañu lañu jàng ba seen xol yi leer ñu bëgg yonent bi di la wax ci yonent bi bëgg loolu yonent bi waa mbëggeel duñ ko jàng dañ cee toll dañ ko yëg li mooy problème bi xam nga yow nga ubbi téere mag ñi fekk fa ñuy wax ñoom fañ tolloon yonantu bi am na benn ma xam nga lu mu bind daf ne yonantu mooy lekkam mooy naanam mooy ay jongamaam mooy ajjanaam mooy yoon yi muy jaar moo ko feebar moo ko wérloo waa li li lii yow loo ci mën a jàng yow <laughs> yéema dafa jégg dayoo kay mënoo cee dara <coughs> déedéet ci den koy yëg den cay toll hmm. am na mag moo wax ne yomal xiyam albodax benn lay doon moom di supporter yonent yonent ko supporter te kenn du yéegu wàcc bàyyi sa morom te duñ ko bokk. Ah. loolu noo koy lay ñoom dong mun a teg naan alxuraan li mag ñi bind c'est faux. mag ñi. tëna leen ñu inventé ñetti aaya yu dend ci alquran munuñ loolu ñoom ñëpp nag boo leen dajale ci balance teg leen ne leen créé leen lu mel ni alquran ñetti aaya hmm. sëriñ Cheikh Omar Foutiyou su échoué Cheikhu Tidiane échoué Abdou Khadir Jilani échoué ndax Ababacar Sadiq leen gën a fort yonentu gën koo fort te mënta inventé alquran hmm. yaa ko ko jox mënta ne ñoom kay li mën a nekk mooy ñu jàng alquran ba am ci dégg boo amutoon seen xol leer ak alquran ba yàlla uññee leen xëy bu xamal leen lum la xamoon loolu moom mën na nekk waaye inventé alquran tënale ku mën mënta inventé alquran nooy bindee lu ñu tollee alquran seen xel yeggut fa seen pexe yeggut fa seen mën-mën yeggut fa they a incapable ñoom ñëpp bu ñu leen joxaatoon dund ñu dund ba tey mënuñ loolu. waaye nag bëgg giñ bëggoon alquran jàng giñ ko doon jàng gëm giñ ko gëm jëfee giñ ko doon jëfee boole koog màndu gu mat sëkk bëgg mbokk di ci wax lu baax di ci def lu baax bëgg rasulillahi topp sunnaam lii moom mën na leen a yóbbee ñu am leer ci seen xol yi ba xam loo xam ne jàmbaar taxul nga xam ko waaye yàlla rek lay neex mu dimbale la nga xam bi moom mën na nekk ya bindi ma ni ku ko teg tolale ko alquran di setlu ci dëgg mu juru deug yow na fekk nga mom bu bakkar la ci yow waxuma bind bi baxu de way yow mi koy tolale yow lolu mom bakkar la ci yow so deme ba yalla bind nit nit koo xamne ne cosaanam man niw la moy sperme nit ki dafa mujjé nek niw ñu sang rop ci biir suuf ci nga mën ko tolale ke bindu nit koku yow mom yow mom da nga réer waye lang koy bëgg a bakkar na ci yow xel mu sel nangul ko rawati na xol bu gëm yalla kon tontu sàllaaj bi moy defrat question bi waruta nek ñi tollale mbind mag ñi encore ça c'est faux parce que mag ñi amuñ xel amuñ mën-mënu inventer ñetti ay lu mel ni inaata ko kawsar fa salli li rabbika wa la inna sanaka huwa al labtaru bo dajalon mag ñem ne inventer ko mu tëlee daal loolu nag ni nga toll nag taaye ca des ak seen mbind yi su boobaa seen mbind yi dafay mel ni cuuraay ak wanag alxuraan ne cuuraay seen mbind yi wanag <coughs> gis nga ni ni xeet yi wute waaw noonu leen wutee alxuraan ba tey xamuñ waxi yàlla la wala jëmmi yàlla la wala melo yàlla la xamuñ ci dara dëgg la tey jii mën nañu mën nañoo jàng tey ci mm-hmm. comme li nga wax ni bu fekkente ni maanaam bu ñu tënkoo ci ni nga ko ni nga ko ni nga ko tontoo ni nga ko interprété tey ñoo ñu nga xam ne ay sët lañu wala ay taalibe lañu xër man xër laa ko mën a jàppe xër bu demee ba tax ñuy indi dunduloo seen maam yi loo xam ne dunduñu ko woon wala di leen wax looloo xam ne waxuñu ko woon di leen def looloo xam ne defuñu ko woon loolu tey lan nañ ci mën a jàngate xër bu métti la yéegal niveau la teg nit ki fu mu yeggul ndax parfois dañuy dégg sax ñu ne sëñ bi mooy yàlla dañ ko fii sax dégg dégg nañ fi ba dégg yàlla euh, sëñ bi moo bind yàlla yooyu yëpp dañ koy dégg waaw li ma mën a wax ci loolu mooy damay delluwaat tuuti sàcc ci tontu bu ma la tontu woon mm-hmm. commencé ko tontu bi mooy mag ñi ñu ci bari waxuñu xam-xam mbëggeel lañu wax cofeel cofeel nag gaal ak dof la dofa ciy dugg ci géeju dof lay fii mbool la bee ci géeju dof nga la cofeel bu dëgg ci biir xol mën na tey nga nam ma man Cheikh Ahmed cofeel mën na nga jóge koy Espagne ziyaare ma ci guddi gi delluwaat cofeel mën na loolu cofeel mën na nga bëgg nit mu dem bay dee nga tiim ko na ko bul dee du dee mu ngi am ci tubaab bi mu ngi am fu ne te pourtant kooku sa du jullikat du wir rekat waaye mbëggeel gu mu bëgg yaay ji cofeel day téye ruux di nga am say yaay wala sa mu war a dee nga tiim ko du dee fekk déplacé wuloo mbëggeel gi ko bëgg moo téye ruux gi ba mag ñi dëgg dañ lay yónni fu sori bala ngay ñëw ñu dee mais mënuñoo dee sa kanam kon cofeel mën na tey nga bëgg sa sëriñ ba xabaabal ci moom yàlla uññil la sa darajaay sëriñ ak maqaamam nga dem ba doo yem ci tollale koog yonantu waaye da nga koy gënal ci yonantu parce que doo gis yonantu moom nga gis hmm. tamit lim gis la sañ wax loolu cofeel la waaye du xam-xam bàkkaarab cofeel nag ci nitu yàlla wala mbiru yàlla yàlla des koy jéggale na Seydou Omar daf noonu yow yàlla yàlla nag ma yokk ngër man ngël mande ci sa jëmm ji maanaam dafa bëgg yàlla gëlëm ba gëlëm googu mu gëlëm ci jëmm yàlla ji mooy xam-xam ci moom muy ñaan yàlla mu gën a gëlëm buggut a gindeeku su fekkee ne nag cofeel googu daf la dal ci Cheikh Ahmed da nga naan moo gën ci àddina dëgg la cofeel googu bu jàppee ci sëriñ Touba danga naan amul morom moo gën ñëpp Ahmadu borom jaam ñi loolu ngay parce que danga nga jàpp ne jaam ñëpp alalu sëriñ Touba la waxoo xam-xam waaye mbëggeel nga waxee mm. cofeel boobu bu la jàppee ba nga jàpp ne buñ demee ci téere yi Maodo yow ginnaaw Maodo élection nga def yow yow yaa yow yaa bi yaa def carte ya organiser élection ya publicité yaa woote yaa joxe verdict yow ci yow Maodo moo gën su passé Maodo Cheikh Seydi Hadji Malick Serigne Babacar Sy moo fi gën su passé Serigne Babacar Sy maam Abdou su passé maam Abdou njabootam ngay gën yow sa élection foofu la am nga ci droit cofellement mais waxoo xam-xam de waxoo fi benn xam-xam. yow Baye Niass la la yàlla ubbil nga ne moo daq ci nit ñi mooy international bi moo wax lii moo wax laa lu ne nga wax ko bay bu fi Baye Niass génnee nga jël mbir mi toxal ko ci ay muqaddamam ak ay taalibeem ah ku jokk ci Baye rek yow fa ngay seet xut bu samaan fa ngay seet lépp am nga ci duraawaay waxoo xam-xam mbëggeel képp nga wax Baye nga taalibe yoo xam te taalibe Baye c'est pas forcément dafa war a dem Medina dëgg la te euh, Sénégal boo ko dégloo dafay mel ni yàlla dafay mel ni nit yàlla yi Sénégal leen ñoom bu ñu tudd nit yàlla dañuy tàllal seen baaraam yi gis nga buñ Tuuba ne Baay Ñas wala ñu ne ñeseen ne Tiwaawoon ne Laayeen ne Njaasaan pour ñoom nit sërëjë bàyyi daw mun naa am ànd yàlla koo xam mu ngi ci abini su ñëwee rek dinaa ko xam dina def vert mu ngi leer boobu maa ngi lay dégg bu baax yaa ngi may dégg bu baax tey am na nit yàlla boo xam ne mu ngi administration bi di liggéey ministre de la culture su Sénégal buggee takk bu wéeteeg boromam julli ñaar rakk réew mi du tàkk hmm. te day dem nitu dal mu yàgg bu passé téeméeri at nit yàlla nekkatul fay taxul ndax yàlla mbiram feeñul mm-hmm. waaye nëbbuwul dafa am lu ci feeñ am lu ci nëbbu am loo xam ne par waxtu lay feeñ par waxtu lay nëbbu yàlla amul programme machine la teg Touba fa lay nit yàlla yi ku sant mbake nit yàlla nga ku sëñ Touba jur nit yàlla nga yàlla amul programme boobu amul machine production bu mu teg Tiwaawoon ku fa juddoo jugee ci Maodo nit yàlla nga yàlla amul machine boobu amu ko Medina Baye ci coobareem gi nguuram gi la ko am kooku dafay doon chinois day doon njaago day doon jullit day doon lu dul jullit waaye wirasatu muhammadiya munoo ci toog te doo jullit waaye mën nga doon nit yàlla te doo doon jullit waaye ñun dañoo tënk yàlla xatal ko yàlla ci suñ xel mi la ñuy mbiram te mbiram yàlla du xel loolu mooy tontu bi. <laughs> macha allah eh, li nga xam ne ni moom mooy eh, li xew ci jamono xam nga chaque jour rek la cay xew chaque jour rek li ñuy waxtaane Cheikh Oumar Diagne li mu wax déglu nga ko li waral mbomboor gi ku ne di wax. Hmm. am na lu ma ci déglu am na lu ma ci déglu am na lu ma dégg nit ñi wax te maa ngi gis coow. noo ko jàngate. wala ma tegal la ci tuuti nga déglu tegal ma li nga mën tegal ma déglu Sénégal gi rek ngay gis bokkaale bu gën a rëy ci àdduna ci histoire yu humanité laa te waxuma waxu firaw nag dara histoire humanité nit waxul lu gën a grave lu sénégalais wax fii ci dëkk bi te wax bi lan sama sëriñ diw moo bind yalla lii sëriñ ko fi Sénégal ñi euh, ko wax mu ngi fii dëkk mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi si dëkk bi ay mbokkam génnuñu defuñu déclaration merewuñu ko te wax bii dama ne Firawna sax ñemewul wax ne maa créé yàlla Firawna sax dafa ne ne man maay yàlla kese maa ko ñoo tolloo waaye wootewul ne mu dafa bind yàlla maanaam bokkaal yu a rëy yu am ci réew mi benn dëkk laax ñemew koo wax bu fekkoon jamono yonent la yàlla alak na Sénégal bu yàgg donc ñu dafa mel dañoo toog alkande mu ngi suñu kaw bopp ndax wax yu rëy ñu fiy wax ak di yàq deru yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko sosal ak di ko tuutil di jël ay sëriñ leen teg ci kaw borom bi subhanahu wa taala di jël ay bindu sëriñ ay xasida di ko teg ci kaw alxuraanu yàlla bi subhanahu wa taala dama ne ñaawte fi mel nii ñun danger daf ñuy daf ñuy gétee sëñ Touba ba ci jihaat boobu nga xam ne xeex la pour défendre ko sama d'accord ko moom moom il préfère pardonner l'oppresseur dafa ne moom du xeex te baal na déjà ki xam ne moo ko tooñ waaye léegi kenn ku kooku sëñ Abdou Khadre mën na jëlee ay gànnaay damay dem dóoraat damay saagaat damay damay donc aujourd'hui fii Sénégal dafa am benn réalité bu fi ne dañoo wor mag ñi fii li fi nekk mooy dañoo wor mag ñi bu topp ñu mag ñi fii man gëw ma ni am na kenn ku mën a am problème ak mag ñi Lo docteur Lo am problème ak mag ñi ndax mag ñi sunna bu leer la ñu nekkoon si ñu nekk kenn mënu ko génnee sunna maanaam koy xool si tarixa bi ma ne tarixa bu laa gën a ñeme waxtaanee mooy tarixa tijaan mais tarixa tijaan avant ibaadu yi di ñëw fii di critiquer tarixa bi te critique yooyu am na ci un bien fondé am na si yoo xam ne dafa am yoo xam ne bokkaale bu wér la bi nga xam ne waa tarixa ñu ngi koy def tey ji ak li nga bokkul ci islam dañ ko ci sos ay bidaa yu doy waar yoo xam ne ñoo ko si boole waaye bokkul si tarixa yi su tari suñ nit tarixa yi andiwuñu ko woon man avant ibaadu di ñëw Alaaji Maalik dafa def critique la tidiane ak du tasawuf en général ku jël ki fayturaari bi gis ni c'est une critique a fait et c'est ci diine bañoon lépp luy dolleeku ak caay-caay jàdd dañ ko nangu woon nanguwuñu ko woon dañ ko doon dénoncé léegi nag ñun aujourd'hui bu ñu ibaadu yu ñoo taxaw di ñu teg du doigt naan yéen seen pratique nangam du yoon lii du yoon si nangam dañoo war a sant dañoo war a gërëm ñun dañoo war a gërëm ndaxte il nous il nous donne la contradiction ba pare critique bi nga xam ne pour ñu mën a améliorer parce que man critique dama jàpp ni moo ñuy améliorer moo ñuy daan beaucoup plus y xam les dernières statistiques yi ñuy wax. ñu ne Ibadan actuellement les problèmes de l'heure parce que. loolu benn la ci li mu wax. la lecture bi suñu kilifa yi kilifa yi yi fi nekk duñu ay yàlla. Euh, dama bëgg tamit gars yi tamit defloo seen biir xel yi. ce ne sont pas des jëf qui sont là au Sénégal. Cheikh Seydil Hadji Malick Serigne Touba El Hadj Abdoulaye Niass Baye Limam ñoom ñëpp laax kenn du ci yàlla laa wax ay nit lañu ay nit ñi nga xam ne ils ont posé des actes. C'était de grands intellectuels, hein. de très grands intellectuels, des hommes engagés, des hommes, des savants, au présent sur nous, des patriotes. Parce que l'islam, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce euh, leen ñoroon Ils c'était pas par par bi xew daan Ils étaient, c'était ci ci Nous, ñu mën a ensemble pour me régler les problèmes des musulmans problèmes de l'islam n'est-ce pas Problèmes de l'islam l'islam aujourd'hui on les connaît problème yooyu léegi pourquoi mun ñu ko analyser de manière de manière dépassionnée et de manière intelligente nag euh, pour mën a xam fan la ñu jëm ak la ñu war a def man je pense que aujourd'hui du même si sahaba yi sahaba mais sahaba yi daawuñu d' accord ils étaient pas d' accord da gis ku taxaw ne Aboubacar Sadiq d' accord maak yow ci wax fi kenn ma fi ñëw man d' accord maak Alaaji Alaaji Malick wala daa dañu wax fi d' accord maak moom donc yow sa ngay bëgg la lekk da c' pas ay borom xam-xam ay dof ñoo fi nekk mais lui, mënul continuer de Nous le et on doit voir avec les lunettes notre temps en nous appuyant sur le travail qui a déjà été fait par mais on doit aujourd'hui dépasser euh, les enseignements qui ont siècle hein. je suis désolé mais il y a le monde. Dieu chaque jour yàlla muy dafa teg jaam yi yàlla yàlla taxawul ay mayam jeexul wal axiratu xayrun laka min al ula lii ñëw après mooy dàq foofu li weesu woon te yàlla nag jamono bu nekk nag moom mooy samp ay ndaanaan yoo xam ne ñoo koy taxawal diine bi pourquoi ñun mun ñu xalaat ne jamono bii y a des enjeux islam y a des combats de l'islam y a des musulmans qui sont là qui doivent les porter ñu bëgg toujours di porter en touche di tappale ay waa sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi donc il faut ñu il faut ñu sérieux tuuti donc euh, euh, li am moy man dama gis ne projet islam ci boobam laa gis moom commencé yàq Sénégal fii te chaque fois mo ko nak dama ne tarixa xay kilifa yi sampoon tarixa yi ñoo xeex diine ñoo ko xeexal ñoo ko taxawal de manière dépassionnée nak de manière pas pas du tout mbiru tapalé wala calcul yalla lañ doon yalla kessé kese mais aujourd'hui ñi ñi ñi ñuy boole seen bopp si tarixa yooyu yàqu yàqu yi am si yëpp instant ñoo ko yàqu tout ci plateau télé boobu waj daf ma laaj ci walu koor man yeen yi ñep xam ngeen ni man talib tiyaan la lolu man au début dama ko doon neub sax sama japp ni pour man bokul ci respect ñi may waxal ma leen bëgg forcer sama sëñ ndax forcer mo lu yoon té lolu dafa am la meut ils sont champions ñom en concon bëgg forcer jëf sëñ man sama sëriñ daaw sa tudd ba léegi may wax yow def sama live ba jeex du ma tudd sama sëriñ parce que ma jàpp ni ñun ñi lu ñuy réglé dafa dépassé mbiru sëriñ ñu bokk dafa rëy trop te par respect kenn ku nekk jal koy tudd sa sëriñ mais man dama am sama sëriñ am naa foofu maa ngi gën a jeex tàkk fuuf sama sëriñ maa ngi ko gën a bëgg juróom-ñaar yoon te maa ngi ko gën a xam ndax man sama sëriñ ànduma ak moom ci yëf yi dof dof yi gars yi xewal nii man dama jàng xam sama sëriñ loolu la wax dama ko gëstu dem xool ñi mu doon àndal xool ñi mu yar dem xool ay bindam man ay bindam laa wóolu parce que dafa wax lu leer inna xutuuti lil anaami saadatun sama bind bi sama bind yi sama rëdd yi may rëdd ne ab texe la ab bànneex la pour pour fii donc man dama dama dépassé ay c'est-à-dire seek ak ay daanukat yi may waxal c'est que man loolu laa fa laa indi wooyeen jàpp ni danga ngeen war a dépassé fi ngeen nekkee sax ndax fi ngeen nekk tarixa ëpp na loolu li yenn la ci yu mu waxoon mais li indi waat wax yi yëpp moy que dafa wax bo tuddu ne amna ay signe franc-maçonnerie ci jumaay touba wax ba tuddu buru Maroc bi tuddu ne mom franc-maçon la en même temps aussi mu tuddu ni ci borom ñaari tur la yoy nak non seulement gaay yem kep ci limu limu wax ni actuellement mais dañu lepp lo xamni ni wax ku nek di ci débat nak ku nek gaay yeb bëri xam-xam mais tay ci wayu señ bi ci jang jang jang señ bi nan nga jangate yi kaddu yi wax. wax yi dafa riche te dafa bari soo ko daggat daggatoon moo ma doon dimbale mais li nga ko wax rek yóbbu na ma feneen te dafa gudd. Mhm. te benn bu ci nekk point la waaye da ngay poser question sa bopp Cheikh Omar Diagne moo dérangé wala li mu wax moo dérangé su dee moom Cheikh Omar Diagne moo dérangé suma ma yoon nekku ci comme dérangé yéen ñaar seen affaire la du suñu affaire

ne mom moo déranger wala wax bu féké mom la du suma fe suma yo nekku ci su féké li mu wax la nen laaj ñaari question ben lam wax ni am nañu wax lu gëna yees lolu loolu te dérangé wul ciow amul manifeste amul wax ji bariwul ñi wax li dendoog moom it lan moo tax coow li demeewul ni gis nga dëgg soo koy xeex acte ngay xeex mais pas personne bi mm-hmm. personne bi day dee waaye dëgg daf fay des fen daf des beneen question bi mooy ñi nga xam ne ñoo ci nekk di mer yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ak a wax ndax ka tax ñuy mer ak lu tax ñuy mer lam fi indi jaral na leen loolu masalan tey sëriñ yi koo mën a doon nga bokk tuwaawan nga bokk tuuba ndax li sëriñ tuuba la alquran jaraloon ba di celal tëdd ci laal alquran moo fi tëdd ndax yow mii xeex Cheikh Omar Diagne ci lii ngir da nga bëgg Serigne Touba yow alquran jaral na la loolu kereeg bi xelam nekkee ci soos bakkan bi mu togg lu ganaar te ba fajar ne bakkan do ma diriger man Cheikh Ahmadou Bamba baat na tukki yaa xalaatoon ganaar mu ngi nii te doo ko lekk Iya, yéen ci sour lu neex kep ku taxaw di xex ak mer ngir serigne Bamba nga sa kër gi nga am ndax def nga lu toll non ci jumaam ji def nga ko ci daru kamil ndax joxe nga addiye bu lu toll boko deful sa bop la gënal serigne bi léegi question yi buñ ko poser nak ñu non non non ñi gis daal ñi kii yëpp kenn ci ñoom tariwut ci alquran bak min al baqara ba min a jinnati wan nas kenn ci ñoom mësta toog ne maa ngi tafsir tafsir bi def na ko liggéeyal seexul xadim ndax moom amul lu mooy alquran bëggut lu mooy alquran mosuñ ko gis ci ñoom mosuñoo mm-hmm. gis ci ñoom ñu génnee seeni alal defar ay téere yu bari taxaw ci mbedd ndakar wi tak seen digg yi lan ngay def ñu ne dañuy tasaare mbindam cheikhul qadim ci mboolem jam ñi ndax ñu jëriñu musu koo gis ci ñoom itte ju rëy ji ñuy def ne dañuy xeex Cheikh Omar Diagne pour mu wàcc ndax mas na ñoo def itte ju ko mel te du seen programme maam du jàng yi ñu organiser ak bindal nit du jàng yu ñu leen invité ngir jox leen enveloppe waaye itte bu rëy la boo xam ne boo ko xoolee ba ci biir daraay àddina nekku ci lépp sëñ Bàmba kese la question yi yëpp ko tontoo nag ba pare nga door a ñëw na ci làkk ñoom seen légitimité ci doon taalibe Cheikh Ahmadou Bamba kaay ma wax la lu tax ñu war a laaj ci loolu Cheikhul Xadim moom den koo tooñ moom dañ mu muñ tooñ te yàqul diggante mag boromam yàqul diggante mag moromam ba mu amee dëgg dafa baale murit bu fi xam sëriñ bamba te muy dëgg ci yow nit su waxee ci sëriñ bamba doo manifester doo takki rajo sa mbëggeel moo koy faj dama ne fii ku fi bëgg sa sëriñ ñu tooñ sa sëriñ mënoo koo fajee lu mooy làmmiñ bu gudd bàyyil sa sëriñ te dem te xam ne mosalut la wilaaya beneen bi ci tegu yooni murit ñaar moo ko may secret booloo nekk benn ak ndigal ñi woote manifestation bi kan moo leen jox ndigal benn kilifa rek am ci yooni murit muy Cheikh Mouhamad Mountakha Mbacké su fekkee joxut leen ndigal kañ la yooni murit am ñu ñàkk yar ba sañ a ubbi Masalikul Jinaan